Aly Ngouille moo tane bu fekkee affaire confiance la opposition bi Aly Ngouille Ndiaye moo tane bu hmm. moo tane euh, euh, Félix Antoine ah Félix Antoine xombal la dëkk APR xombal élection bu jot day jël day jël xaalisam di leen ko jox pour ñu gañ pour Macky Sall gagné c'est un militant de donc opposition bu ñu nelaw mukk yaakaar ni seen personnalité la càkkute fi opposition bi ci boobu moom amagul ndax Félix moo ko Macky Sall ñoo ànd APR la bokk loolu moom dama bëgg mu leer te itamit sénégalais mënuñu fàtte bi nga xamante pexe lan lañ pexe pour écarter marché ni mais Félix Antoine Diome ci nit ñi ñu utiliser woon pour ñu écarter leen ci lañ bokk donc amul nouveauté par rapport à ça te yaakaaruma ni tey nomination dina nekk loo xamante ne dana dalal nekk parce politiquement et nit la ko nga xamante trop zélé ci liggéeyam boo ko bi mu nekk créé yi donc donc ni les audiences avec Alioune Ndao ci nga nit ko xamante nit ku zélé la donc le président Macky Sall pour man vraiment la le fait que mu Antoine Diome ministère